baax. muy si buuma. jërë ngeen jëf mbokki wasaare ñu ngi leen nuyu di leen jaajëfal bu baax a baax comme ni leen koy faral di defalee tey ñoo ngi fi bi nga xamante ni mooy caaro yi seet si fi ki nga xamante ni mooy Reug Reug tey nag moo jàkkaarloo ak ki nga xamante ni mooy guy Gui ñoo ngi fi bundu kër Reug Reug xanaa maa ngi fekk gars yi ma nuyoo ñoom bàyyi leen ñu waxtaan xool naka la ñuy waajee combat bi ndax combat bi tey nekk na combat boo xamante ne askan wi dañ koy xaar nekk na combat boo xamante ne Reug Reug bëgg na combat waaye nekk na combat boo xamante ni Gouye Gui mbokk yi bëgg na bii combat maa ngi fi nag bii caaro yi ma bàyyi gars yi ñu joxe seen xalaat mbër nuyu naa la. waaw maa ngi si jàmm. te naka ngeen waaj a ko. non ndam rek bilaay walaay. non guy gi day xaar moom baax ban taru ko loolu nag macha allah loolu rek combat bi day jël teg si bakkanam guy gi mi nga tere dina xam lépp dëgg la day xaar daal da dof ñoo ko gën a dof fuuf doful sax. guy gi bëri na doole. non bëri na doole ñoo ko doole fuuf ñoo André dama dof ñoo lekk cere bilaay walaay. kaay kaay kaay. jàmbaar gaay ñu lay fay. tey naka ngeen waajal ko. waaw ginnaaw bu ñu sante yàlla di julli si yonent bu tedd bi. di ñaanal ki nga xamante ni moom mooy Omar yàlla may ka waaw ñun pare nañ si lépp. parce que mën naa ne bés bii nii benn bés la quoi si caare yi. mais guy gi nekk na mbër boo xam te ne yàgg na xale bu nekk si yoon bu ñëw bu ne mu freiné la. Euh, grand Omar Kane mi ma gis nii sànq gëm naa ne guy gi mën na ko freiné bu soobee yàlla incha allahu rabbi. grand ñun pare si guy gi nag tey la xam ne tey la suba ay nettali la bilaa walaay bu ñu ko jàppee rek nga xam ne yàlla benn buur la. te caaree pare nañ si lépp gis nga gaay yi nii ñëpp a ngi nii toog ñëpp fu ne la waaye di jóge di ñëw kon nga xam ne Reug Reug am na lu mu amal Sénégal te gaay yi gëm naa ne tamit dinañ ko delloo njukkal boobu noonu bu sooba yàlla incha allah. li métti woon waa caaree ak li leen jot rëcc yëpp Reug Reug dina leen ko andi. Reug Reug dina ko indi te am na ñeneen ñuy ñëw ba yow boo xoolee ba si biir am na ñeneen ñuy ñëw parce que koroog boo seetaanee open press bari na ay booy yoo xamante ni ñu ngi fa woon li ñuy neen ñaan yàlla nag mooy yàlla yàlla defal ñëpp jàmm combat tey bi nii maanaam yàlla nañ ko maanaam ñu jeexalee ko si jàmm ak salaam quoi waaw ñun loolu la ñuy ñaan yàlla quoi di leen ñaanal jàmm tam yéen maa ngi gërëm waa bétanière bi bu baax di gërëm waa Teranga di gërëm ñëpp di leen wax ne gaañ ñun amuñu ku dul Reug Reug ku ko jàppale nag jàppale nga ñu waaw ko ko faalewul it ñun faalewuñu la parce que kanam incha allahu rabbi dafa mel ni da ngay supporter kan nga fa. rek rek. diggante moo guy gi loo ci wax. xanaa ndam rek am yaakaar bu baax suñu doom. guy gi bàyyi na doole. ñun ñoo këpp doole ñun ñun xale lañ. Ah. waaw ndam rek incha allah. rek incha allah. waaw dafa mel ni yaa sa baptisé dafa mel da waaj dem. waaw sa matin laa ñëwoon kay man. Ah. waaw am confiance trop nag. mais guy gi moom ñetti dee yi wax du du xeex du jàpp. maa la guy du ci def. ñetti moom moom maa la wax loolu. premier dee du bëri du xeex du jàpp. kontaan naa ci. waaw maam maam noo gisee affaire daan ñibbi rek. di ñaan rek. rëg-rëg yàlla may ko ndam ci kaw guy gi. mbotti ko mbotti mu saf mbotti raj loolu la ne ñaan yàlla yàlla jaarale ko fa mu ko daan jaarale. maam de bëri bu yàgg laa wax mbotti mbotti. mbot. mais maam guy gi bëri na doole ñoo ko ëpp doole ci kàttanu yàlla ñun xale lañ te rëg-rëg te guy gi moo mag rëg-rëg moo ko ëpp moo ko mag rëg-rëg moo ko ëpp doole moo ko gën a nekk xale yàlla na ko daan jël bu set wicc ci barke borom Touba. kontaan naa ci Xalil kaay. naka mbii bi njaay bi mooy dox. waaye njaay bi mi ngi nii rek doxut maa ngi jógee parce que Serigne Touba. lan moo la andi. waaw mais ñëw jàppale suñu doomu nday Reug Reug yal na ko yàlla may ndam parce que Serigne Touba xasaay di. gars yi dafa mel ni gars yi mel ni ñoo ngi waaj combat bi fi mu toll nii. waaw waaw waaw ñu ngi koy waaj. mais na guy gi booy na doole de. normalement bu làmb jaaree fa mu doon jaar du taxaw a guy gi da bëri xale moo koy def. mais na guy gi ndaanaan la de. boo xoolee diggante moog Siteu xool diggante moog Nees xool diggante moog Ama Baldé. booy bee ko daax bëre mais wu dee làmb jaar na fa war a jaar du taxaw moom merci beaucoup. kontaan naa ci dafa mel ni tey yéen a ngi waaj combat bi ndax tey koñ bi xumb na lool. waaw waaw koñ bi moom li tax xumb Reug Reug moo ko waral ndax ñun ba ñuy ànd ak Reug Reug booba yàgg na booba jëkkër mbapat lan daan dem di bëri ji ñuy dem man Oumy nday waar dañ daan dem ci mbapat yi dem ba fekke mbapat yi man du ma xale magam jëmmalaa dama daan fekke mbapat ñu du la ba muy métti la woon du nu ñun ñoo ko boot rogante ka ba muy gune ba tey Diome Ndiaye moo ko masaa xam ba tey ji yàlla ñu ne Reug Reug yàlla dogal li mu dogal. mais adversaire yam daan am ak bii du benn. waaw adversaire yam daan am ak bii du benn mais nag di ngeen xam ne tey tey la lépp di doon dëgg tey leen kay ba mu baax. guy gi neex naa def noonu. guy gi moo daan simpi di daal waaye tey moom la simpi. tey moom la ñuy. ngeen ne simpi guy. guy gi dañ ko daan da daan simpiwaat tey mën nañ kaa simpi ba simpiwaat keneen ku dul guy gi. dinañ simpiwaat keneen ku dul guy gi ñun guy gi dañuy jaar rek jàlla dinañ simpiwaat keneen ku dul guy gi na ñun yàgg na noo bëre yàgg na noo xam luy ndam te ñun man dëgg dama kaa yaakaar dama kaa yaakaar dama kaa yar mu nekk xale bu ndaw deful daray fo fowul caaxaanul gëm boppam yaayam liggéey liggéey ci caaray nag sëykat nekk ab sëykat sëy ci caaray mu fekk ñu fi ñun ñii mën nañ kaa seede mais loo ci doole. ndam rek di ñaan yàlla yàlla indi ndam li fii ndam li sedd guy di galaas nag nag méytoo na ka sens bi la xale bu baax la bëgg di bokkam. bu bëree boole tam ñun da ñun ndam rek incha allah rabbi ndam rek yàlla mën na loo may ndam ci kawam ndam li sedd guy di galaas. rek combat da ngay da ngay tey soo teyul moom bu baax da guy gi moom dafa gaaw. na tey rek waa rek la ñuy ñaan waaw. Khalil Kaye. salaamaaleykum ñu ngi leen nuyu seen sant euh, ginnaaw bañ sante yàlla jël si yonent bi sant suñu ñaari waajur xam nga man ay affaire lamb sax ko sama affaire mais démb rek daf ma woo ne ma bis bi nga teew xam nga ma waxoon bàyyi naa làmb mais sama nit la sama xarit la waaw su ma demee ba jàpp ko Siteu moo tax du dëgg mais xam naa ne rek champion la te gëm naa ne làmb ji nii. préparé na ko préparé boo xam ne nu mu ko doon préparé rek yeneen làmb yi xam nga bis mënul weesu bis bis mënul mag mag mag mag ba weesu bis xam mais dañ koy ñaanal yàlla na ko yàlla may ndam te gëm na ni yàlla suñu borom dina ko defal ndam ndax xam nga tax bëre moo ko dàq guy gi xam-xam moo ko ëppale yaa ngi dégg moo ko ëpp doole teg ci kon nag dañ koy ñaanal yàlla na ko yàlla may ndam caale géej jaama si si kàmbaaw fépp ñëpp ci ginnaaw ba ci géejawaay bi guy gi dëkk ci ginnaaw di ko ñaanal ndam ci daraja Seydina Muhammadu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. tamit mu ngi ci ginnaawam seeni baawa. naka ngeen waaj tey combat ah, ngi koy préparé au sérieux euh, ñaan sunu mbër am ndam ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam waaw ñun amuñu ku dul sunu mbër suñu mbër rek lan am. man moom li ma koy wax mooy na bëreeg moom bëri xale jàppa daan loolu kese la. kontaan naa waaw maa ngi dellu kontaan si yow. Fatia. mbër nuyu naa. lan moo fi sa teewaay. non Omar la ñu bokk entraînement bokk lépp. naka nga ko gisee. waaw oh, sant yàlla. sant yàlla quoi sant yàlla baax baax. di ñaan yàlla yàlla may ko ndam set wecc waaw ndax liggéey ko ko yeewee. Sa Thiès Sa Thiès lan lan lan nga fiy def. waaw xam nga lan la fi lan la fi def yow xam nga la fi def. xamuma dama jékki-jékki. rek rek ñoo bokk entraînement ñoo bokk lépp waaw. nan nga gisee état de forme. non rek kay état bi nice moom. wóor na yàlla. guy gi yow xam nga ne mu ngi nii di contact kon nag ragaluñu góor gi xooluñu sa xeex bee ci na ëpp wala bëri. non instant yii yi lu mu laaj rek moom la ñuy indi. waaw bu laajee xeex ñu xeex bu laaje bëri ñu bëri. waaw. kon baax na ci kanam naa ne daal mbër mi daal moom day def lépp. waaw ataxal li kañ la. dugal dafa mel ni dafa mel ni ci staff bi nga dafa mel ni yéen a ngi ci wàccaay wala noppi ngeen non ñun pare nañ démb tey door a ñëw waaw dañuy ñaan yàlla rek yàlla may ñu ndam bu sedd guy ñu dem daan guy gu ñëwaat resaan toll wax jee bëri rek mais bu wax ji bëri dëgg day réer mais kenn ku ne Reug Reug xam ne guy gi lamba wax lool guy gi guy gi ma yaakaar dafa may sens non non may ñu sens de ñoo liggéey ba toll si moom ñoo liggéey ba parce que ñun boo xamante mais combat bi est-ce que dina am combat si bëgg rek ñu fekk si ko si si Google dépendre waaw yaa am gën a xam. kontaan naa ci yow. yow ñoo jàmbaar. fu ngeen toll. ñun pare nañ fépp. bilaay walaay barki maam Seex. combat bi tey lan moo ci war. combat bi. non combat moom ñun moom amuñu amuñu amuñu si protection. bilaay jàpp daan rek. guy gi ndaanaan la de. waaw mais mais mais mais mais loolu xam nañ loolu. mais ñun tamit ñun ñun ñun ndaanaan lañ yor. ndaanaan si kaw ndaanaan. bilaay xam ngeen loolu sax. barke yàlla kontaan na fépp ndam rek ndam kase yow am ci loone maa ngi nii sant yàlla. ñëw nga gis la nga ànd sa doomu ndey. waa gis nga. ñu ngi nii rek ginnaaw bañ sant yàlla julli si yonent bi maa ngi sant sama ñaari wàll bi sama tanta di ñaanal waa Sénégal yëpp waaw di wax dem rek delloo buum sa boy boy ga. tey lan ngay tey lan ngay waaj. waaw lu bees rek tey rek rek baa ñëw a ngi ñëw bu bees sàq lañ mu ngi ñëw tey dafay ñëwee doole barke Seydina Mohamed di ko ñaanal yàlla nag ndam koy waajal ci tuus bi. waaw lu bees sàq rek. tey bu nga ñëwee stade yéen ñëpp di xam ne moom moom yi andiwaat na lu bees ñun sa jour ak lu bees rek parce que gan gi dafa toll foo xamante ne nii si man man ak moom dañoo dépassé ay diggante mbër ak ay tëggkat nous sommes des frères à ce moment que nous sommes barke yàlla rek yàlla may ñu ndam lu sedd gu ñu dem si jàmm ñu si jàmm. waaw. waaw. waaw xam nga tey nit ki dem ger doo jël sa matériel yëpp lii day am loo xamante ne koy bàyyi loolu tuuti la woon rek li des yëpp après état lay xewee doo jël lépp yóbbu ko open press ba. rendez si kanam tuuti nii rek waaw. si kanam léegi. da ngeen di waaw waaw sant yàlla. mais xam nga ne ku ku ku kuy bëree ay mbapat yoo nii cent vingt huit mbër la façon mbër bu nekk di nga fa daj ak moom kooku benn mbër du la jaaxal barki Seera Fall ñaan yàlla yàlla ma ñu ndam rek ñun rek liñ koy wax xamalen la liñ naan doomu ñaay kenn du ko ñaanal rëy da nga koy ñaanal gudd fan loolu rek lañ koy ñaanal ñun xam nañ bu baax ñun fi ñu combat bi toll moom la ko ëppal solo moom si boppam moo ñu gën a bëgg bi fuuf nañ dem rek grand Abdou Ngom dafa am wax mu wax bu am solo mu ne la warul mais dafa am loo xamante ni du jot wax dafa jooy ñu laaj ko lan ngay jooy mu ne dañ maa wax te warum wax mu jooyaat ñu laaj ko lan ngay jooy mu ne parce que dañ maa war a wax te waxuñ ma Abdou buñ ko waree wax rek dinañ ko wax après lay comprendre bu affaire yi jeexee maa leen ko doon mais nga ñëwaat taal micro yi ton tontu si kanam lay doon. incha

amul benn njëriñ parce que lii ay minutes la rek daa war a jeex yéen yéenay comprendre dama da ñu gis ne fii bu ñu toll nii jot lan sa teewaay. loolu moom mooy lan nga lan nga dem Touba di laaj lan nga ko Touba xam nañ ne màggal bu jógee si biir Touba woon. sa diggante ak réew mi. waaw diggante ak réew mi maanaam moom dafa dépassé ay jafe-jafe. maanaam moom dafa dépassé ay jafe-jafe.

waa gis ngeen rëgg a ngi noonu di génn waa kër rëgg ngi noonu Cheikh ngook Cheikh bu rëgg a ngi noonu am na lu muy siw mboq dugub tey làmb làmb a ngi noonu sa waay ñëwal tuuti léetee Ngok tey làmb combat du dàq boobu combat. aca daa mel ni Reug a waaj combat mu guy gi il est 14 maa la wax loolu. Cheikh génnaat na. layu leket. lamb lépp tegtal la. bu ñëw. ah waaw ça va onze heures onze heures la ñu waxoon onze heures ba trois heures. mbokk yi noonu di waaj a génn. am na ku ma seen mu benn saako. boobu mooy Dem numéro 2. Ahmed Dem yaa ngi noonu di génn yi ay butéel lay def Ahmed Dem a ngi noonu benn saako génn na ànd ay layu beneen saako ngi noonu làmba ngi noonu. butéel yi Coly Faye gàdd na benn saako ñetti saako. Eh, lamb ja tey du yomb beneen saako ngi noonu waa Lamine li bay na de <laughs> eh, beneen saako ngi noonu day lamb de ah dégg nga Lamine nee day lamb beneen saako ngi noonu ay lii fu ko di sottee ko lii fan la ko di sottee ko beneen saako ngi noon di génn juróom wala juróom benn c'est kon de gum naa tey saako de. waaw nee na juróomi saako la. juróom benn ngi noonu di ñëw. làmb daala ngi ni beneen beneen mbuus a ngi noonu. ak layoog xàncak lépp ngi ci biir. waaw loolu da xànc lay nduru. Reug Reug mu génn. yow kay waa ñu génn waaye pare gu ñu def nañ bagage bi ñëwaat. c' est. boo amee combat say mbokk du ñu nelaw. say am na jàmm du ñu am jàmm. lamb dafa métti. lamb dafa métti. dafa métti. yaa ngi ci kawam. waaw am na kuy ndox ndox maa ngi wala di génn beneen saako gi noonu di génn. amee dem Seex a ngoog aja Seex koy rey. Coly Faye beneen saako set. huit de. huit kay jàll sac cey ji lam beneen a ngi noonu di ñëw. maa fay nanu la. ci la leen ne. caar nañu wër. neuf. mais saak yi bari na a ngi noonu. day lamb. ci onze. onzième a ngi noonu. butéel boobu xanaa daa tuur saako baa ngay send de. du saak. ndaay kenn du rek. li moo tax guy gi li moo ak ay butéel. waa yéen. waa yéen lii lan la. ndaay kii teewu ma abal benn bi. yaay rëgal nga ñu noonu. gàddu leket bi cay làmb làmb daa metti seize sac seize sac a ngi yaay rëg a ngi di duggaat ci biir oh. li may wax rek cey làmb butéel yaa ngi noonu huit butéel yu mag <laughs> xale léegi bokk nga ci làmb quinze sac bagage yi jeexagul. bagage eh. yi jeexagul. waaw. galaaj bay na de. jëlal lii. galaaj bay na trop waay. Ah, jëlal pareeguñu de. c'est. Reug Reug moo yaay teel a dem. waaw moo yooyu dem moo yooyu dem yi eh, li boo dem doo ko sottee waaye yéen déet déet. déet déet. jëlee Coly Faye. 25 butéel de. da ngay da nga koy leeral 25 butéel 10 litres ngay wax. 25 voilà gàllaat dañoo organ. waaw seize saako def ay butéel ba mu fees. ay butéel ba mu fees. te jeexagul de kan moo compté woon léegi na compté woon. ñaar nga wax vingt <laughs> cinq vingt cinq vingt sept. vingt sept butéel. seize. seize. rek day lamb kenn du rek. lamb daa métti. ndaay kii ma ko rëg-rëg la. ñetti ndaaw a ngi noonu. ñetti ndaaw ñetti ndaaw la ñu. vingt neuf butéel dix litres. Hmm. Cheikh Angok. daa ngay jàpp daa ngay jàpp. tey dana rendi dana rendi rek di jaay ñu ngay jaar. keesu picc yaa ngi noonu wala boog pitax wala pitax la def waaye pitax la waaye pison la beneen kees ñëwaat na bu def pitax ak benn pan benn paan. waaw ah, paan bi teg si bunt bi. moo maa maa gi ay naat la def ay naat. naat la def de. naat la def ñaari naat a jëndee. paan baa ngi nii ñu teg ci bunt kër gi. xam ne rek rek day kenn mënu ci dara. génn rek. génn na la def bariwul de. làmb ngi noonu. la ko def bariwul te fay ak noonu beneen saako gi noonu di génn. kilifa gi noonu. ci biir géew boobu ci digg bi la jëm. waaw nduru na ko beneen ndaawa ngi noonu. soo yor soo yor ndaali ay butéel saako xoolal ma ngi noonu di dem. a ngi génn wis rek wis rek. saf de dina ko def tey. saf saf kay arène nationale kay dina saf moom.

ay Kabo xaaral ma woo la. waaw man maa ngi bëgg yow de Baara Ngari Baara. wala ay Kabo borom sant yu baax yi. te ñaay production xaaral ma woo la. am na benn leket bu génn. bagage yaa ngay génn ba tey. bagage yaa ngay génn ba tey. bagage jeexagul. allo Kabo. waaw ah. kay biti la fanaan inshallah <laughs> ok waaw Lamine Lamine mi lan la mel ni rek ah <laughs> dugub lool lool koy def Lamine loolu nu koy def dañ koy déggal Lamine. da koy yenu laa ilaaha illallaah Lamine wax yaa ngi lay la la ñu génn ci bagage ñu génn ci bagage saako yi de mën na tar butéel yi mën na taram day rek day lamb lamb daa métti daa métti

waaw eh, xoolal kii la mu rango Senghor leket ba béjjën ba laay xoolal ma ko njàb bi ci Reug Reug ngi noonu di waaj a génn Reug Reug ngi noonu di waaj a génn moom sol benn débardeur bu weex Rango Senghor ñoo ngi ñaanal ci biir daa ni yaay jee koy ñaanal ñaanal na ko moo ngay génn di ñëw. sawaay sawaay sawaay eh. eh. kii sànq nga puus suñ kanam mais mais nga puus suñ kanam. réew mi noonu di waaj a génn. ñoo ngi koy sotti butéel ba ñoo ngi koy sotti butéel ba eh, tey làmb doomu caaroy bi sottee ko am nañ ko beneen butéel rog yo noonu jëlaat nañ ñetteel butéel bi Well, watch him Boy, watch noonu moo ngi buntu kër gi di waaj a génn ku nekk ngi sotti say bouteille ma copain copain. c'est. rëgg gi noonu tëb na. sotti waat nañ beneen bouteille. bouteille ñu ngay sotti bouteille rek. waaw non lii de. Lamine da joo ti góob. rëgg nga defaraat gàllaa ah xaaral xaaral teel ko ko rek yëkkati sa loxo tuuti. ngay sotti bouteille ya. ba tey. tey rek. moo ngi taxaw ci buntu kër loolu ngeen noonu ma ngay jaayu ma ngay sotti bu dee mooy jaayu. Tey bii bis. am na bu dee bu ndaw bu ñu koy sotti. Yoro Kang ngay génn. Yoro Kang ngay génn. waaw nga génn na moo ngay sarax am na lu muy joxe rek am na lu muy joxe tàndarma mbuusu tàndarma ak suukar rek nga joxe tàndarma ja suukar bi ñaan na ci rek ñaan na ci ñaari carton suukar yi waaye rek rek ñu noonu dangay joxe suukar yi dangay joxe suukar yi donc man rek ñu teewlee ko donc organe de la ko tafal ñu fii ci caar rek ngi noonu

mbooloo bi bëri na. waaw. jee toll foofu. lamb jee ni toll. bés bee laaj loolu. Tangaya. moo ngi sotti tàngal yi ay banana ak i pomme Minum sana, dia kata betul betul. Hei, good. Boy, boy, boy, boy. Apa hal ini lagi, boy? Ah, sana. Kita akan, kita akan. Apa sana? Jokan apa iPhone? aki banana aki caax dawuy waaj mu ne waaj Thank you. Yaa ngi ko 많이 옵니다. ñun duñ tuut duñ ragal xale bu ndaw lan jom rek da ngeen di am rek eh, am rek am rek inshallah guy gi mënu ka bañ dañu daanu inshallah rek sifflé boo ko bàyyi si géew bi sifflé dañu daanu si sifflé nga fi bàyyi naa lay wax mu xam ne mag la ñu daan ka ndànk combat bi sax gis nga combat bi nii waaw billahi wala dara guy antanul lii bu mënu ka antanul lii day jaaxal mënu ka dëkk si suuf la jëm guy gi bu soba soba mënu ka dëkk

Vamos ver, pega.